والقلم وما يسطرون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته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 yaakaar na jàng nañ lu bari ci makaayinu watil xaraka waxoon nañ xaraka fatxa nan lay mel waxoon nañ euh, kasra maska suuf nan lay mel waxoon nañ maska lonk nan lay mel maska lonk xilaaf bon moo ci am maska lonk xilaaf bon moo ci am ci fan la war a nekk kuy tontu kuy tontu dama ne da ngay def nii bañ tànn entre vous ci bi ci yéen kan lañu war a laaj da kii nee na euh, amaama aw fawxa man nag euh, dégguma arab bi loo may lan loo may lan ci wolof loo may lan mu ne ci kawam ah mu nekk ci kaw ci kanamam wala mu ne ci ci wetam ci wetam yéen yow wala ci kanamam wala lahu ci ci kawam walla lahu wala ci kanamam voilà day lii la d'accord ngeen léegi waxoon nañ tam euh, tanwiin su fekkee ni bi alif moo ci mujj loolu ñaata wax moo ci ñëw laa bu kenn tontu te laajuñ leen dégg ngeen dañoo bëgg a xool ñi nga xam ne duñ yëngatu sëñ Bale borom mbaxana mi ñetti wax d'accord ngeen ci ne kii nee na d'accord ci ñeent d'accord ban ci ngeen d'accord ñeent wala ñett ñi wax ñeent ñan lañ ñi wax ñeent kenn nit ñaari nit ñetti nit ñoo fi wax voilà léegi ana ñi wax ñett majorité bi ah, am na ñu waxu dara ñu wax ñett ñan lañ yéen ñi yéen ñi ci lan ngeen wax yeen da ci xamul dara ah mais seen loxo na jóg ñu xam fan ngeen bokk ah voilà léegi buñ paree léegi xaal bu njëkk bi lan la bu njëkk bi ban la bu njëkk bi benn benn benn rek benn xaal rek lañ sol mhm. ci kaw arab benn aliman benn xaala rek lañ soxla boo ciy wax eh, eh, kii eh, marqueur bu xonq am na voilà nga ne masque bi day nekk benn rek lañ soxla ah, ah, kii day am masque kii am masque d'accord ngeen xaala saani lan la non non yéen itam kii li mu xam lay wax d'accord ngeen ah voilà xaala lan la beneen keneen lañ soxla Une somme Attendez. aywo ñaari masque yi tolloo fan laa koy def faaraf ban ci mim gi ah. ñaari masque d'accord ngeen saalisan xaala saalisa ma xool sëñ bi aywa ah ñaar yëpp ci kaw alif gi lay nekk ah voilà léegi nag am na ñu waxoon ñeent xaala rabia ban la ñu waa ñeent laa bëgg ngeen indil ma beneen bismillah xoola bu baax bàyyi ma non non non laa tatakalam ana waa ñeenti waay ma bind laa alima taxawal mais wax ko ñu dégg waxal ma maas la wax nga ne déglu ma ah voilà hey eh, it's right wax na dëgg it's right eh eh eh wax na dëgg waaye yéen wax na dëgg voilà jayit arbon xaalaat waaw wax na dëgg eh eh am nañ ko fi dem lii la wax lii la wax voilà léegi déglu leen déglu leen déglu leen fii lii eh, Abu Amr Daani Abu Daawud Abu Amr ñoom ñaar ndax am nañ xilaaf ci ñaar yi ci bii ak bii Anta bii lañ saxal euh, imaamul kii Shuraysi ndax am na euh, lum jàpp ci lii lan la wax moom lan la jàpp ak lan ak lan la mujj jàngale ginnaaw bi Shuraysi kii Gharas mii nii nii nii tontul bismillah faddal ci kaw alif gi lay nekk ndax waxut ne am na leneen lu am mhm. aha moo amoon jamil loolu la jamil eh, hada kaana muraajaa après ñu continuer da nga a bëggoon ngeen nekkaat ci leçon bi bala ñoo commencé jàng voilà léegi ñu ñëw ci nag continuer eh, darsu bi nekkoon demu doon nañ jàng wa qabla aywa xarfil xalqi rakkabta rakkabtahuma aywa la ci topp waxablu ma sibaahu at baatahuma foofu la jëmoon dem kon ñi ngi doon jàng maanaam wattu maanaam xarakatu tanwin ah lañ commencé demb jàng na ci benn xaala mooy foofu lañ tamoon jàmm diñu xanaa mooy yoon a la jamoon kay foofu la dem voilà kon li njàngoon démb mooy ñaari masque boo ci xarfun min xuruufi xalqi toppee ah dañuy tegalaw lu dul loolu dañuy toppante lu dul loolu nag day mel ne kon arafi abajada yëpp juróom benn nga ciy génne lool dana am lu mu ci waxaat loo xamante ni bii dafa am lu muy génn ci àtte boobu dégg ngeen loolu la ñu commencé te incha allah taala man yaqra alabiyaat lam voilà léegi nag ñu ngi jàng xaala saaniya loolu mooy oh taxu koo kii de markaat bi ah. waroon na effacé bi sans kii kay dama yaakaar ne jëmm kii bi jëmm kii bi ñor markaat bi dafa newul kii doom yoo xamante ne bii kii taxu koo jóg du palette bi kii bi téere bi de dafa jeexoon mooy bi ñu euh, bi jëmmi marqueur bi ah. dafa newul pour palette dafa newul pour table ah. du pour table waaw yi la dégg ngeen washaddu euh, wa shaddu baadu fiihi jaa'i lam nara mu ne nag ñu ngi jàngal benn xaala xaala bu mooy lan su fekkente ne bii ñaari maske yi benn ci araf ñeenti araf yi moo ci topp nee na dañu war a sàdd araf boobu loolu mooy washaddu ba washaddu euh, baadu fiihi jaa'i lam nara xurufi lam nara mooy laam laam laam almiim hmm, annuun ah ñaari maska bu ci bu ci bu ci laam toppee dañu war a sàdd laam bi misaal fi hada min alquran karim ñaari hudal lil muttaqin hudal للمتقين يجب وضع شدة هنا هنا dégg ngeen parce que laam moo ci topp xudan bi nuñ koy maase am na ci waxoon de ka muftara ah, ah? alal yaa ah ndax amul leneen leneen lañu doon alal daal voilà kon washaddu baadu fihi jaayi washaddu ak sadda fii hijaay lam nara war naa am ci arafi hijaay yi ne ci baatu lam nara mooy allaam wal miim wan nuun war raa al miim misaal fi hada hudan min rabbihim hudan min rabbihim ah, hudan min rabbihim hudan min rabbihim voilà jayit misaal maa nuun yow ma itin naayima yow mal xiyaam lay wax ah yow ma itin naayima naayima suñu abdu suñu table bi da xam naa ne yow ma itin naayima arra fi fi anchet radia neex na lii daal moo gën ay sawaraak kenn xamut fi anchet radia fi kon lii mooy xurufu mooy mooy lam nara allaam wal miim wan washaddu baadu fiihi jaayi lam nara lan moo lu waral lu waral ñu ñu ñu di ko sàdda tawjih bi mooy dañuy wax ne allaam wan nuun al allaam wal miim wan nuun war raa bu ngeen seetloo id idxaam xaalis lay nekk xoola xudal xudal li allaam allaam xudal li gis ngeen ko xudam mi may idin na fi anchati ra parce que tanwin bi ak maxar dañ jege dañ ko léegi boo war seetloo euh, euh, tanwin bi dafa soppiku léegi comme ara ko ara araf bi ci kanamam kii boo ko dul bind euh, ci wàllu arab xudal nii nga koy bindee gisu leen ko nii gisu leen ko kon léegi tanwin bi au lieu mu nekk nun lay daa soppiku ak laam même bi boo ne xudam gisoo ko nii hudan min bu doon buñ la joxoon euh, tamrin ci arab ni nii lañ koy bindee dégg nga hudan min dégg ngeen gisoo ko nii da gis kon te la daaw la doonoon nun dafa soppiku bii loola lay jox yow ma hmm? gisoo ko nii nii dañ koy bindee yow ma isin naayma gisoo ni muy soppikoo nii loolu moo tax ñu dañ koy itxaam itxaam xaalis bu ñu koy taw ji foofu lañ ko teg kon loolu ñeenti ñeenti araf yooyu ñoom ñoo ko am am na yeneen ñaar nag yoo xamante ne bii wax ji ni ñu ko tënkee day mel ne lépp ci mel ne am na ñaar yu ci génnaat danañ ko dana ko wax ci kanam muy alwaaw wal yaa alwaaw wal yaa da ngeen danañu incha allah taala kon daal washaddu baadu fihi jaay lam nara lan moo ci topp wa gayrahu faarihi jara mu ne nag ñaari masque arab bu mu topp bu dul ñeenti yii ah, faarihi bul sàdd arab boobu ci kanam ah mais yéen du ngeen seetluwu leen boo xamante ne bii day sàdda kanamam te benn ci eh, ñeenti yee am na de dana ko wax yaa ci la bokk ah? ak waaw dana ci ñëw hmm. même ça waaw bi hada leer na wa xayruhu faarihi kayfa jara wa xayruhu nag boo ko seetloo loolu idxaam moo ciy dugg boo ko seetloo ixfaa moo ciy dugg boo ko seetloo iqlaab moo ciy dugg dégg ñett yi dañ ciy dugg boo ci xool bu ñëwee kenn du ko laal gisoo ko ni danga naan euh, alimun xakiimun gisu leen ko ndax sàdd nañ xaaki waxee raxoo moo tax mais lan moo ko waral bu ngeen seetloo xaa gisoo fi muy jógee ni mu soree ak tanwin loo tax kenn du ko sàdd bu ngeen seetloo li ñuy sàdd ko fekk daanaka dañuy jege maxraj boo jëloon tam beneen ci maanaam eh, eh, xalq yi jël naa xaalee gi masalan jëlal beneen baat xadaa bun a gisu leen ko kenn du ko sàdda ajrun xayru gis ngeen kenn du ko sàdda ba jeex da ngeen mais boo ñëwee xuruful ixfa yi nekk fukk ak juróom yépp noonu la sifta dana lu ci topp kam jaara shaxsun xad zama dum tayiban jayit fukk juróom yooyu maanaam kenn du sàdd araf bi ci kanamam doon tanwin la da ngeen xafoorun cha chin la ixfa la xafoorun cha ixfa la léegi nag loolu mu wax am na loo xamante ni bii ci kanam la kam la danañ ko mais nañ bàyyi ba mu agsi ci mais yi raxu lépp loo xamante ni bii du benn ci ma xuruf euh, maanaam lam nara ah faarihi na nga rafleel araf booba ci kanam ci ak sàdd kay fajaraa nu mën a ñëwee atte boobu nag lépp a ngi ci mais lépp ci ci ni mu jàngalee mais lépp nekku ci daanañ ko xool ci kanam albert taali man yaqra jàngal ma dégg voilà lii ma la wax nag naan waxay rek xam nga lépp da cee nekk mu ne ah hada lii ma lay wax kat kañ lay am ida abxaytahu ah ida abxayt indal bàyyi lu ci topp indil yaay wala waaye wunnatan la dal adaya voilà loolu mooy kañ su fekkente ne bii booy jàng waaw wala yaa day am wunna loolu laa wax de loolu laa wax su boobaa su boobaa da koy sàdda dégg ngeen su boobaa su boobaa du sàdda su boobaa du sàdda atte bi su boobaa kon ñoom ñoo bokk même atte dégg waaye su fekkente ne bii boo koy jàng maanaam doo am xunna doo am xunna su boobaa kenn du ko sàdd loolu leer na lu mel ne eh, li mel ne eh, riwaaya bu xalafaan Hamza day jàng miw waalin miw waalin miw waalin dégg ngeen mais bu dee ñun lim jàngale nii xelaatu naa fi bokk ci ñun dañuy dañuy na bu ñuy jàng waaw ah am déet dañuy xunna bu ñuy jàng ya dañuy jàng ay ay yeekum di jàng miw waalin miw waalin dégloo xuna bi miw waalin bu ngeen seetloo kon dañuy dañuy sàdda dañuy sàdda dañuy sàdda waaw gi même ay yaatiyekum dañuy sàdda yaa gi loolu moo ko mu ne haada lii ma la wax nag mooy ida ab xayta indal indal yaayi wal waaye wun na tan la dal adaayi waaye su fekkee ni bi doo ko def mu ati bi moom ñëpp ñoo bokk fuñ jëm da ngeen waar su fekkente ne bii maanaam yow du am xunna lañ waxoon ci ay moroomam ca lay dem dégg ngeen bu baax ah lañ waxoon ci ay moroomam ñoom même àtte la ndax xam ngeen li mu wax bi daf ko généraliser mais daa ko ci génn mooy mooy mooy ah, mooy alwaa walyaa kañ bu dee am xunna bu dee am xunna ñoom dañuy am sàdd mais bu ne woon càll euh, mun mënut am sàdd parce que waxee roxo waa ak yaa ci la bokk te dana la woon wa shaddu baadu fihi jaay lam na wa xayru faarihi kon min waali waroo sañ sadda waaw gi ay wa teyeekum waru waru waroo sañ sadda yaa gi mu ne nag waaye nag ah su fekkente ni bii boo ko jàng day am xun na su boobaa moom da ngay sadda yaam gi dégg ngeen loolu day nekk idxaam naaxis idxaam naaxis moom lay nekk bu nekk bu doonoon xaalis moom bu doonoon xaalis su boobaa moom lañ ci wax leer na ma idxaam naaxis lay nekk ma idxaam boo xamante ne bii daal jëluñ ko ba mu jeex idxaam naaxis ay yaatiyeekum nga xamante ne bii masalan jàng nga nuun gi mais jàngaale nga aussi itam yaa gi mais waalin jàng nga tuuti ci waa gi aussi mais jàng nga nuun gi mais boo xoolee yi nga xamante ne bii xudal xudal li xudal li di déggoo fenn nuun gisee loolu mer mer rabbi déggoo fenn nuun déggu leen ko voilà loolu moo tax muy wax fahimtum hmm? nuwaatil fi hada nuwaasil man yaqra Mhm. voilà mu ne nag lii ma la wax lii ma la wax hada ida abqayta inda alyaai wa waawi gunnatan lada al waaye nag su booba kaana su fekkente ne bii su fekkente ne bii atti bi ma la wax nga xamante ni boo koy jàng maanaam moom day am day am gunna kaana ka baaxil ahrufil moraati araf yi nga xamante ni bi maanaam dañ leen di rafleel mooy yan mooy lu bokkut ak ñeent yooyu nee na nee na ku ci bokkut rek maanaam moom bu amee tanwin ma araf ba ca kanam bu ko kenn sàdd bu ko kenn sàdd mooy nag bu fekkente ni bii yaa ak waaw wun na wuñ ko su boobaa moom atte bi moom la mais buñ ko xunaana day génn ci lañ waxoon moo tax mu ne kaana su boobaa dañuy nekk ka baaxin ahrafil mawraati kem araf yi nga xamante ni bi maanaam kenn du leen laal ñooy bokk même atte da ngeen min xëyri farxin wala du noxaat même noxaat yi sax même même loolu ñuy wax noxaat yi bu xam ngeen ne bu ngeen seetloo maanaam maanaam dabtu moo mooy moo mooy maasal kii def tajwid pour mu xam nan lay jànge seetlu leen ko dabt mooy moo moo moo lay maasal ba nga xam fan ngay wax an yaatiyekum ak fan ngay waxee min rabbihim mu ne na at bii ma la wax moom maanaam bubbaat yeeg ak noxaa di ñoo ci bokk même atte même nag attention noxaat yi ñoom ñoom la ñu def mooy dañ naan bu fekkente ni bi dafa nekk maanaam ixfa amul fenn fu ñuy fu ñuy fu ñuy sàddaa kon am nañ ci wuti tuuti ndax bu dee bu dee bu dee ci bubbaat di ñoom dañ naan bu dee bu dee yaa bu dee waaw ak yaa bu amee ixfa dañ koy sàdda foofu la ñu wuti mais lëccal sëpp ni ñoo ko bokk le da ndax leer na ci yéen xam ngeen li mu ndax xam ngeen li mu wax ne dafa wax ne atte bii ma la wax ñiy jàngale dopt ak ñiy jàngale naxwu ñoo maanaam ñoo ñoo ci bokk atte ma ne leen loolu mu wax nag matali wut parce que ñi jàngalee wu ñoom dañ naan la maanaam xuruful ixfa yi pour ñoom buruñ cee sàdda benn ah maanaam ah, ah, xalq yi ah? eh, bu dee ñoom dañ naan yen mu yan mu ah, dañ koy dañ koy sàdda ral la kenn du ko sàdda kon bokkuñ ci àtte mais bu baa maanaam nag ci ahlu dabt ñoom dañ naan lañ ñu ixfa yëpp ixfa yëpp buñ ci sàdd benn waaye nag su fekkente ne bii booy jàng waaw ak yaay day am na su booba day am sàdd te loolu ñun ñoo koy def muy riwaayat wax waadi hada fahimtum nuwasil man yaqra waaye voilà al farq bayna mudghamin wa muqfa buñ lay buñ koy séparé lu ñuy sàdda loo xamee benn bi dañ koy idgham ak lu ñuy ikhfa moom la la ñu séparé rek mooy hada mushaddadun wa hada xafa lii dañ koy sàdda lii lii dañ koy woyfal kon lépp loo xamante ni bi dañ nekk idgham loolu mooy lu ñuy sàdda luy ikhfa mooy loom dañ koy fan loolu moom kiiw daal da doon amul beneen sens daal da doon xamle rek ikhfa ak ak ak ak maanaam lu ñuy lu ñuy idgham moom la doon xam lu jot xam mooy loo xam ne day am sadda lu ñuy ixfa mooy loo xam ne du am mais nag lu ñuy ixfa loo xam sadda am nañ ci ñaar bu ñu ko fàttee ci xiraatu naafi ah mooy al waaw wal wal yaa wal yaa loolu nag daf ko wuute ak maanaam euh, ñi nga xamante ni ñoo jàngale ñoo jàngale naxwu dégg ngeen ñoo jàngale naxwu hmm, ixfa déedéet maanaam da da dane la xam nga waxay raxoo ji waxay raxoo ji ñu la wax la ne la dafa boole ñett yëpp idxaam a ci biir ixfaa ci biir ixlaab ci biir mais danañ ci ñëw bu ne woon cell pour moom yëpp doo ci sàdda benn xam nga loolu la jàngal mu génn ci ñaar mu génn ci waaw ak yaa ne lañ moom kat man nga koo sàdda su fekkee déedéet boo koy jàng day am day am na loolu la la wax mais fi mu ne li mu waxoon waxee raxoo ji itam négal bañ ñëw fii iqlaab bii mi ngi ci biir ah iqlaab mi ngi ci biir. Hmm? wax dëgg ah kay gisoo alimul hakim jëm ñëkk wax. non maanaam moom it maanaam euh, bu ñuy wax dañuy ay ay adresse la ñuy jël izhar jàngal na la ko bare ci waroofu lam na la moo boo ko tiitaree boo ne izhar da nga ciy dugalaat gaayam yëm génne woon loolu da nga koy seetee mais doo ko def comme titre loolu moo tax dégg nga mu laa sa jëyit seetlu bi baax na dégg nga mais boo ko tiitaree woon da nga ciy dugal yu mu génne ba pare loolu moo tax wala da ngeen hmm. comme euh, adabun alimun xam am sa am sa kenn du ko sàdda izar la euh, alimun hakimun kenn du ko sàdda hmm? izar la voilà man yaqra waaidan in chita miman sugra minhu libain iz bidaaka yuqra xam nga waxoon na la fële wa wa gayrahu génnewaat si waaw ak yaa mais génnewaat na ci baa ah lu mu wax waawidan karil bayt in chita voilà kañ minhu li baa in daaka yuqra ah mu ne la nag loolu tam leneen la waxoon nañ la waxay rox waaye waxay roxoo mi ngi bëgg a ami ami nu ñu koy waxee di xaw ma ami sel mi ngi bëgg ami sell waxee roo la waxoon de waaye alwaaw wal génn na ca ah ah alwaaw ak alyaa génn nañ ci mu ñëwaat génne waat baa mu ne xëy na ana kii waaye génne waat baa ko bëgg a gisal sama bopp tàyyi koo laaj mu ne nag sooy maas waawidan in chita miiman suxra minhu li baayin su la neexee itam waawidan in chita miiman suxra minhu li baayin su la neexee ah kii boobu masque tanwin boobu nga soppi ko ak miim gu ndaw bu ci baa toppee loolu moom loolu mooy iqlaab ci tajwid ah. am buurika ah. am buurika ku mel ni benn misaal ah. sa baat daa jafe de am boorikaa gën a neex a bind de am man man fi naar la neexee nga def la wax. atte bañ la jàngaloon. ca ca maaskaya. wa qabla arfi xalqi ah ah rakabtahuma wa qabla ma siwaahu atbaatahuma continuel continuel ah bi adabin biisin léegi nag lii mu la wax ku ma indi lu am ñaari masque voilà bi adabin biisin wala bi adabin biisin wala ba isin bi adabin doo ko nii bi adabin mim bu ndaw mim bu ndaw bi adaabin mu ne lii mu ne lii dagan na waaye yaakaar naa ne kon régal ba ñu waxoon tam ussi génnaat nañ ci sell ngeen ko bu baax sell ngeen ko bu baax kon kon fii ñaari anam dagan na ci ci loo xamante ne bi maanaam moom la Abu Amr Daani wax Abu Amr Daani nag moom lam jàpp mooy fii bu doon ñaari masque nga maase ko nii dégg ngeen parce que dane la woon waa waa xabla ma siwaahu at baatahuma taw waa xabla ma siwaahu kat miim ci la bokk seetlu ngeen ko bu baax seetlu ngeen li fay wax dalaa jàngaloon ca démb neen waa xabla abdul xalqi rek ab waaye waa ma siwaahu at baatahuma waa xabla ma siwaahu kay euh, kii ci la bokk kon jàngaloon nañ ne kon bi'adaabin bi'adaabin soo commencé nii maa fi mushkil waaye nag euh, euh, Abu Daawud lam jàpp mooy moo wax lii nii àtte bii te yaakaar naa ne àtte bi mooy almaamul bi yaakaar moom lañu jëfe soppi ko miim gu ndaw voilà waawidan bi waawidan hmm, in chita miiman sughra minhu li baa'in parce que it bi daaka tuqaral même même loolu lañ koy jànge am buurik ngay wax bi adabim bi adabim gisoo miim gi ngeen dégg bi adabin bi adabin bisim bi ma kaanoo suqoon voilà yaakaar naa ne foofu bunt boobu ndax jeexut foofu la moo ci topp ah ah <laughs> ah waaw xam te ne yéen di ngeen jàng te bëriwul tey jii de ah eh sama gars yi gis ngeen tey jii li ngeen jàng bëriwul képp ah. sama gars yi suuf nit yi ah. ah waaye sax fi la as yi aywa aywa jël aywa jël xam kan moo mën a taril wayoo ñetti waye njàngoon ma bàyyi fa bopp ci mhm. aywa bismillah aha xarakatul xarfi sukunun xad jara aha aha aha kayfa jaa naam jaaratu naqlin hmm? déedéet jaaratu naqlin man yafta alay wasilatun ah kon baax la ay wa lu ci daf aha alif voilà kon boo xoolee euh, jàng nañ benn mooy xarakatul xarfi moo yem fii dangeen ngeen xarakatul arfi ah xarakatul arfi mooy yem fii kan bu subaa la ñuy commencé jàng incha allah sukkoona moom lañ la bëgg a commencé nii mais da ngeen bëgg a yem fii. laa basa waaw laa basa effectivement hada maa yaxum xam ngi moo ci am solo da ngeen ndànk-ndànk lu mu kii li am solo mooy ñu xool ba xam lu ñuy def bu yi passé lu ñuy xool la ba xam daal mais lii moom lu mu ngeen xam ko da ngeen lu ngeen weesu rek xam ne weesu ngeen ko incha allah non may ma mokkal gi moom nag du kii xam ngi ma am solo aywa ñu kon aywa ma njàq la ma xool aha voilà kon euh, ngeen jégal mu ñu continuer ah waxukum nu ni sakanat an tulxi sukunaha inda hurufi alqi léegi nag ñi ngi jàng maanaam aussi itam ba léegi sax mën nga ne masque la dafa soppi kii bi rek wa hukum nuun sakanat nuun ah, maanaam hukum nuun saakin waaye hukum nuun saakin moom la ñu bëgg a jàng andul xii sukoonaha lu ci topp indaxu dafa alxi mu ne nag maska niig bu jaar fa alxi toppee dañ koy mas dégg ngeen bu jaar fa alxi dañ koy mas dégg loolu leer na masque nii nuun buñ ma masque bu ci arfa alxu toppee nuun googu dañ koy mas da ngeen wax foofu wookum nin sakana andulxi sukonaha inda hurufil xalqi eh, aywa misaal fi hada ah, min voilà pardon voilà minhum aywa yan aw yan nu bindee yan xaw na non non non non yan aw na yéen bindee yan aw bil waaw wala day am ala satr wala ah hakaza teg ah am sa bi ci kaw hmm? doo am bëñ doo am nabra ah tayib voilà hada laa yaxumuna lii lañ soxla aywa ah. yan xew na la parce min on min hum ana amta kon naa dindi pe après ana amta aywa ak ban ah min hakimin min hakimin ak ban ah wan xar wala non am nañ xaar ah min min xabiirin ah min xabiirin min xabiirin am na ci alxuraan min xabiirin min xabiirin de bu doon arab dina noo jaaw waaye alxuraan ah min xayrin wala min xayrin wala min xayrin léegi xool am nañ xaa am nañ xaa am nañ ayin xëyin min xillin min min wala baax na min xillin bu ngeen seetlu yëpp <coughs> gisoo ko nii gis ngeen ko nii yëpp dañ koy mas parce que lu ko waral bu ngeen seetloo maxraju xurufu alx dafa sore ak ak noon fu ñuy génne loolu la loolu mooy taw ji bi da ngeen ko bu baax loolu moo waral dañ koy maas kon kuy ko ci kuy bind kaamil te nga bàyyi xel bu baax da ngeen xurufu alx moom noon ci topp dañ koy maas lan moo topp ci woy wi waaye nag am na fi ñaari atte bu fekkente ne bii beneen araf daa bu bokkut ak maanaam orofraal dégg nga mu wax ne wa inda kulli ma siwaha tonra noonu saakin arab bu mu topp bu yii kenn du ko laal da ngeen noonu saakin arab bu mu topp bu yii kenn du ko laal waaye nañ koy maase nag nee na wayen tasha sawarta mii man suxura kañ min xabli bàyyin seetlu leen ko même boo xoolee laamoon fële ca ca ca ca ca ca ca iqlaab ah moo ñëwaat fii seetlu ngeen ko bu baax wayen tasha sawarta mii man suxura kañ min xabli bàyyin su fekkente ne bi maanaam ah, baa moo ci topp ah, voilà min baa voilà min baadihi lii nii lii nii lii nii lii nii euh, da ko seete mais duggoon na ci àtte bi ma xoon ah duggoon na ci voilà voilà <laughs> effectivement kon bi mu wax ñaari masque ñëwaat na ci bi mu waxee itam maanaam benn masque aussi ñëwaat na ci benn masque dafa waxoon ne euh, ci ginnaaw euh, woo noonu sakanat antul xi sukkoona inda huruf alxi waxayrahu fa waaw kulli maa siwaa tonra wa inda maa kulli siwaa tonra kay baa ci la bokkoon wa inda kulli maa siwaaha lu yooyu tonra kenn du ko laal kon kon kon lim setteewul da caa génneewaat ba waaye nag wa inta shawarta mii man suxra kañ min xam di bàyyin da واضح؟ hmm? waaw léegi nag màggal wayu da yalzamu fii kulli ma tanwiinu fiihi idxaamu mu ne nag moo bu ngay seetloo li ñuy idxaam moom foo fekk moom day ànd ak shadda da ngeen seetlu ngeen ko bu baax voilà waaw ah, suma shaddun sadda yalzamu kañ fan fii kulli ma tanwiinu fiihi idxaamu fépp foo am tanwiin dañ koy idxaam su ngeen seetloo day ànd sadda ndax idxaam idxaam maanaam xaalis lay nekk lu mel ne xudal lil mu taxi na xuloo fi lam nar rek maanaam moom moom lay jàppal dégg ngeen wala lañ seetee ci ñun xiraatu naa fi muy muy alwaawal yaa dégg ngeen ko bu baax voilà ah duri doon am naxif xuna ah xoola gis ngeen almuhim mooy la ci njëkk mooy ngeen dégg ko mm-hmm. loolu moo ci ab solo ngeen dégg ko su ngeen paree ngeen mën ko mokkal parce que mokkal mooy xam-xam saa yoo ko soxlaa day ñëw lay moom Shaafi ay waxoon man fu ma nekk rek xam-xam mi ngi ànd ak man dégg ngeen waaye dafa waxoon ne man xafida ah hmm, al mutuun xaazal funuun man xafida al mutuun xaazal funuun xam-xam boo ko bëggee am da ngay nangoo mokkal wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla duñ leen ijbaar ci mokkal bi mais baax na. mokkal nañ kaa defee. mënuñ kaa loolu dëgg la moom. ah dëgg la de. dëgg la de almuhim li baax am na solo li mu am na solo mokkal gi moom mën nañ koo dabee waaye njàng mi moom man mi mën na maa dem sax waliyaas billaahi ñu ne borom sam mu ñu ne borom moom ah waliyaas billaahi ah dégg ngeen. waaw mën nañoo al muhim na ngeen ko xam man yaqra ah wala aywa mhm. mu ne voilà loolu daanaka sëriñ la ñu waxoon fee wal waaw wal yaa in abqayta gunnataha indahuma asbatta alaama tashdidi wa sukuna in chita in chita mu ne nag waaw ak yaa su fekkente ni bi ma danga caa da jàng day am na su boobaa da nga koy maas sàdd ko waaye inchita boo xoolee moo tax mu ne leneen am na ca inchita mooy soo ko di doon kenn du wax dara bu ngeen xoolee téere yi jógee sarx duñ ko def téere jógee sarx wala waaw. mu ne wal waaw wal yaa ida abxayta gunnataha indahuma asbatta alaama tashdidi wa sukuna in sita voilà maa lahu min duni mi waal da ngeen gisaloon ko ah fon war naa bind lii la la wax dégg ah waalin wa bu dee yaa ayaatiyahum ayaatiyahum yoo ko nii ayaatiyahum wal yaa ida ab xayta soo fa bàyyee runna taaya runna ba indahuma ci ñoom ñaar nga xam ne dangay wax mi waalin wala ngay wax an yaatiyekum asbat na nga saxal alaama tashdidi man mandargam sàdda gii wa sukuuna ak maske ni gii in chita kon soo ko defee noonu kenn du la jàpp dara boo xoolee bu téere charq yi rek dañuy bind masalan may yaamal may yaamal voilà gisoo ko nii ah, voilà dañuy kii nii rek yi fi kenn du ko sàdda te yu charx yëpp nii lay mel nii lañ koy maase régal bi moom moo tax mais nag almaamul bi indana ah, mooy lañ leen waxoon muy xelaatu naafi mooy nuun maas nuun gi ah, sàdda yaa gi comme fa ma yaaman yi ngeen koy maase mooy régal bi bi lim njëkk a wax loolu mooy loolu mooy loolu mooy almaamul bi da ngeen mais bu ngeen gisee euh, kii yuñ ko itam ñu xam ne lu jaarul da ngeen hmm. aw arrihima wan nuuna nga bañ maas dara bàyyi ñaar yëpp doo maas nuun gi doo sàdda yaa gi loolu tam am na da ngeen waaye nag almaamulu bihi indana mooy tashdidul alyaa ah, wa eh, sukun hmm? ak nuun wal wal waaw da kon daal waaw ak yaa su fekkee bi yi day am wunna na nga maas nuun gi maas waaw gi sadda yaa gi da ko bu baax voilà sukkoon ko na maas nuun gi sadda waaw gi maas nuun gi sadda yaa gi su dee am na loolu leer na bu baax voilà voilà lii dafa yomb sax ah. man yàqara lii moom ay kii la amul yomb na wa kullu ma tulisa aha ayu shamm wa taari xukum mooy nag waxoon nañ fi li ñuy wooyee li ñuy wooyee maanaam masque yi nga xam mooy ay cosaan ah ak li ñuy wooyee xarakaat faran ya al faran ya mooy yi nga xamante ne bi abul aswad ad-duwali maanaam moom après bi mu ko andee ca tombam ya xalil indiwu ko waaye bañ bëggee def lii moom lañ jëliwaat xalil bi mu indi ñetti maskaam yooyu bañ ndax xam nga loolu il faut ñu def ko lu wute xam nga fatu jàngal nañ la ko ah fafatatan alaahu waaye alifu mafdadan suxra ah mais kon bu ñu bëggee imaala walla ñu bëggee ishmaam wala ñu bëggee ixtilaas faaw ñu wuti euh, beneen maska te yi moom ah yi xalil def loolu amu ci kon dañuy delluwaat ca tomb ya ba asud wal yi andi woon ca lañ jël pour pour mandargaal lii waa kullu maxtuli sa aw yu chamm ah, lu ci topp fa chaklu naqtul waaye wataari xukmu lépp loo xamante ne bii dafa nekk ixtilaas lépp loo xamante ne bii waa kullu maxtuli sa lépp loo xam dafa nekk ixtilaas lu ci topp aw yu sàmm wala mu nekk lu ñu ismaam fa shaklu naqtun maanaam nañ koy maase ab tomb lay nekk da ngeen maa ngi dégg fii léegi ngeen di jàng imaala ci bi ngeen di loolu di ngeen di bëgg a pare al imaa la ixtilaas al ishmaam dégg nga imaala mooy fata masquer gu xaw a jëm ci masque ak suuf loolu mooy imaala alif lam ra alif lam ra nga xam doo ree diggante fata ak masque ak suuf alif lam sa nuqri'uka fala tansa voilà sa nuqri'uka fala tansa loolu mooy imaala su boobaa waaye dañ cee charte na nekk baat boo xam ne dañ ko imaala waqfan wa waslan bu leen fàtte ne dañ leen waxoon ne ilmu ilmu ilmu dabt mabniyun ala al wasl bépp baat boo xam ne buñ koy imaala taxaw rek mooy tax nga imaala ko soo koy maas da nga koy maas ca maas kay xalil yem la jàngaloon da ngeen ko bu baax dañ cee sart na nekk baat boo xam ne dañ koy imaala waqfan wa waslan da ngeen su fekkente ni baat bi moom taxaw rek mooy tax ñu imaalat lu mel ni masalan ilaa jël musamman ilaa jël musamman su boobaa boobu dañ koy maas normal parce que euh, euh, lañ jàngoon mooy euh, dabt mabniyun alal wasl xamul taxaw da baat yi nga xam ne daal booy taxaw ak booy taxaw moom nii lay mel su boobaa moom dañ koy imaala alif laam ra noo mën a mel noonu lay mel boo taxawee boo taxawut xeet yooyu la lay wax da ngeen wa duxaaha wa shamsi wa duxaaha imaala nag boobu mu ne nag buñ koy maas fa shaklu ah naqtun alif laam alif laam ro fa shaklu naqtun fa shaklu naqtun ixtilaas tam mooy baat bi nga jàng ko jàng bu gaaw mooy fëkk la baat bi di firi dégg ngeen ixtilaas mooy mooy fëkk loolu lay firi lu mel ne laa taadoo fi sabti hmm? ixtilaas mooy mooy mooy mooy xaraka maxfufa voilà fii fii ngay def ab tomb dégg kenn du ko maas wane ne dañ koo ixtilaas bu dee bu dee maas ka suuf ci suuf ci suuf ngay nga ah, ah, ngay teg tomb bi bu dee masqué nga teg ko ci kaw lu mel ne yaxas simona wala hmm? da ngay def fii tombam bii xoola kii bii def fii ab tomb dégg ngeen li mooy ixtilaas ishmaam mooy fóonal la baat bi di firi ishmaam mooy masque ak suuf goo xamante ne bii danga koy jàng mel ni ku bëgg a jàngale masque lonk masque suuf ah paaki maanaam ate bi amut bi riwaaya dañ lay jàngal ixtilaas soo ko bëggee def fan lay am ay e, bariwut taadu la ak e, yahdi bi ci yunus ak yaxasimono bi non non lay wax voilà hmm, masque bi lay wax non non ñun bu ñu koy masque lii duñ ko def. ah ñun duñ ko def lii nii. mais nag bu ngeen seetloo léeg-léeg ngay kaamil même yoo xamante ne fii ay lu mel ne laa taxaw fi sabti dañ ci def benn ak ak ni'ma ya'izukum dañuy benn tomb tuuti ci suuf ñoo bokk même àtte nag boo ko defee fee da ko war a def fii ñoo bokk même àtte de ça veut dire que lii maanaam euh, paari waaye bi lii maanaam yow li ngay jàng. excellence moom euh, comme moom ngay def ah boo ñëwee eh, naa ma yaa su fekkee fii da ngay bind wane damay ixtilaas ayin gi doo commencé da ngay def benn tomb bu tuuti ci suuf wane ne lii ixtilaas la noonu lañ koy defee la lay jàngal dégg ngeen mbindin mi lay lay mbindin lay toppatoo bu lay waaye mel ne waxut ci xiraat bi la ngeen mbindin mi lay jàngale lu mel ne euh, ci ci ci ci Yunus tuuti rek euh, euh, ci suñ borom amal laa yahaddi ah amal laa yahaddi amal laa yahaddi dina ko nii moo dee iftilaas da def fii benn tomb dégg nga dana ko ñëw ca kanam nag lépp luñ leen jàngal lépp luñ leen mën a jàngal luy xonq lay doon lépp loo dégg mu yox fii lépp lu mu fi wax ci tënk lu ngeen fi mën a dégg soo koy def maanaam couleur bu xonq lay doon ci liñ jàngagul lépp da ngeen loolu ca mu jóge la koy wax kon mu ne wa kullu maxtulisa aw yu shamm fa naq naqtun lu mel ni si at suy at maanaam mooy diggante diggante diggante kasara bu jaxasoo ak maska ak maska maska lonk suy at suy at ismaam dëkk fi suy at suy at suy at mais nag maska lonk ngay njëkke ci waxin bi mujje maska suuf suy at suy at wujuhu alladina kafaru wala xoola da ngay def fii nii yi nga koy def. maanaam kii bi jiitu taw bi jiitu suy at wane ne lii dañ ko ismaam parce que lan loo ismaam si ah lan nga ismaam siin nga ismaam mais damaa mënut a bind nag da ah? ah. ngeen suy at da moom bariwut yaakaar na ñetti baat la a ah? ak siyaat ak ban ah, des na benn baat de laata laata laata mun naa bi ci Yuusuf laata mun naa nga xam ne <laughs> dangay def benn nun bu tuuti bu xonq door bind ma nun nga ñuy jàng sàdd ko ishmaam noonu lañ koy defee waaye ndax boo jàng na nga ishmaam man nga ko bind mais ne kii jàng moom moo xam moo lan lay jàng jàngeen voilà kon wakkul maxtu si aw yu chamm fa shaklu naqtun boo koy maas ñaar moo mën a nekk nga tomb ko waaye nag wartaar yo ko bañ koo laal tam mën na nekk suy at doo ci def dara suy at nii nga koy bàyyi dégg nga doo ci laal dara doo ci laal dara suy at doo ci laal dara ak ban laataa mën naa doo ci laal dara loolu tam mën na nekk wane ni lii dañ ko échoué léegi nag lu mel ne Eh, lii lii Abu Amr Daani moo ko wax waaye waaye lu mu Abu Daawud moom daf ne moom dafa lëngal àtte maanaam bañ bañ koo laal parce que dañ soo ko defut eh, kiy jàng bu ñëwee dan dan dana laaj nu koy jànge nga mën ko ko xamal te dañ ne maanaam dopp li ko tax a ñëw mooy yombal kiy jàng ba mën a jàng njàng bu leer waaye nag lii bu ñëwee du xam lu mu doon moom foofu la ko teg waaw loolu la wax mu ne moom pour moom wattaari xukm moo ko gënal bàyyi ko noonu waaw wattaari xukmu bañ a bañ a laal baat bi moo ma gënal ndax man su ma ñëwee danaa ñuy sëñ bi waa lii lii moom nu koy jànge nga wax ko ko waaye boo ñëwee def lii du xam lum doon moom foofu la ko teg waaye nag almaamool bii ci ñun yaakaar naa ne mooy li njëkk a wax ah fa naqtu ah yaakaar naa noonu lañ koy maasade ah tomb yaakaar naa ne laa taxadu waaw soo ko doon bind kii kenn du la ci wax dara. kenn du la ci wax dara après nga sàdd daal kenn du la ci wax dara wala nga bañ koo laal tam kenn du la ci wax dara. dañ la ko jàngal waaye. Ah, effectivement noonu noonu la demee wax voilà naïma ah. ci suuf bu ndaw daal di sàdd mim bi naïma loolu la mhm. waaw waaw ah, accepté accepté nañ ko kay mais day am ci kaamil yi sax kaamil mag yi mag ñi boo ko xool da nga ko gis. ah ah boo ko bañee def sa dara ah parce que boo ko bañee def kay mooy fa taaree xukum abu daawud la mu wax nga def. ah ah al gaa yi tox <laughs> eh yéen buyu ma ismaam buyu ma fa naxtu shaklun dégg ngeen fa naxtu man topp ma de fa naxtu shaklun dee dee leen tomb moo gën a wóor ñu naan kii da ko yàq da ko nangam ne ngeen mais boo daawoon li mu wax mën nañ koo lëngal ndax ndax ndax euh, yii dafa naqaree jàng baat yi mu ne soo ko bàyyee noonu nag buñ la laajee euh, sëriñ mën ko leer ñu koy jànge mais soo ko tombee bu ñëw du xam lu mu doon. nga xam ne ay nit boo ko xasee doo ko maas déedéet koy bàyyi noonu da ngay sàdd kii bi rek. bu dee comme mhm, mhm. waaw bi su boobaa da waa da nga koy da ah, tomb non non bu dee lii kii nii tom bu xonq lay nekk loolu mooy li day mooy li may leen wax. tomb bu dee loolu téere bu mool ba pare la waaye ñun ab xam-xam bu sew bu ñuy bu ngeen di jàng li ñuy woowee xonqal li ñuy woye ilhaq nuñ koy defe voilà ilhaq ilhaq nuñ koy defee mooy loolu ab xam-xam la am na ci jawhar bii benn booy ilhaq. la ngay def na nekk lu sew lu sew ruuj wuute bu dee waaw na sew ruuj mais nag day taxaw ci kaw day taxaw ci kaw araf bi masalan yal wuuna yal wuuna ah yal wuuna lii lii lii lii ilhaaq la kenn du la wax dara bu bu dee bu dee waaw mooy naaral loola jubloo xam voilà euh, euh, naaral mooy yi nga xamante ni bi dafa war a xonq mooy ilhaaq lii mën nga ko bindee boo doon boo doon bindu kaamil solo nay xëy lépp lu ñu war a ilhaq nga def ko lu sew même même couleur wala wala nga xonqal ko boo ko xasee xonqal tam kenn du ne day tuuti fii nag damaa seetlu ne dañuy xonqal ba pare tuutal ko xaw ma seetlu ñun comme léegi seetlu leen ko ah mais mais mais mais lu ci ne daal ma yoon maanaam ilhaq benn day day tuuti. loolu ilhaq la wala mu xonq ilhaq la mais boo xasee xonq kay kenn du ne kenn du ne la nature na rek waaw loolu laa la wax loolu nag lañ dul leeral loolu am na ci jawhar bi voilà euh, ndax way jeex na ñaari bayt waaw bismillah aywa man yaqra mhm. effectivement li ñu doon wax moom moom lay leeral noonu rek li ñu doon wax moom lay leeral li li maas ba pare lool lool lool la kaati bi wax mu ne karil bayt waaw doon fatha lil imala aha euh, waaw doon fatha mhm. mu ne waaw doon fatha al mumaala na nga remplacer fatha gi ñu imaala loo koy remplacer bi naqti da ngay tomb taxatal arfi ci ron arfi mooy mooy mooy li ñu li ñu def ba pare dégg taxatal arfi lil imaala bu dee imaala moom nan lañ koy maase nee na fataa ga alif laam ra masalan alif laam ra wala nga jëloon beneen baat beneen baat ah ah marain voilà la doonoon ah marain la doonoon léegi nga nga ne damay imaala mu ne kon fatxa fatxa gi nekkoon fii ah fatxa gi nekkoon fii remplacé ko tomb fii dégg ngeen waaw doon fatxa hmm? almumaala fatxa gi imaala na nga ko remplacé bi naqti tata nga tomb ci roon araf fii ngir lan lil imaala bu dee imaala nee na noonu lañ koy maase ah abal ma kii ma xool hmm. négal dégg nga euh, aw ardihi wala nga bañ koo laal mooy mooy mooy li ñu doon wax kon lii mooy Abu Daawud lii la wax non dama jum imaamu Daani lii la wax aw ardihi wala nga bañ koo laal loolu itam imaala la bañ koo laal da bañ cee def dara bàyyi ko noonu waaye nag bu dee imaala nee na nii lañ koy maase waaye nag wa naqtu fi ishmaami si wa si at huwa min amaami waaye nag bu fekkee da nga da da maanaam lu mel ne ishmaam ngay def ci ci ci ci si a at ak euh, taaman naa ca kanamu miim ga ak ca kanamu siin ga nee na fa la tomb bay nekk wan na tomb fii ismaami ci boo dee ismaami baatu si ak si at xuwa moom tomb fi min amaami ca kanam moom lay nekk da ngeen at ah da ngeen ma bind mu la vase. voilà doo ko nii dégg wa naqtu fi ishmaami si wa siyat huwa min amaami ci kanamu siin gi lay nekk na la may dars bi. Hmm? Hmm? maanaam ixtilaas ci boppam moo naqaree jàng ixtilaas mooy masque bi danga koy fëkk waaw laa mooy xamee ni kii ixtilaas sax doo ko xam naa maanaam da gaawal kii bi loolu daal naa ne wax ko moo gën a maanaam jàngale ko moo gën a yomb tabbix ko da nga isaam isaam mooy mooy nga këf araf yi mhm. mooy nga këf ah, ah ah bisimilah ah da nga ko bëgg masque waaw ah. waaw masque suuf rek la ñu wax du masque yet kay masque yet ci kaw lay nekk dara dañ la doon jàngal forme bi waaw. Mhm. Mhm. waaw. Ah, non non loolu xëy na euh, damaa mënta bind rek waaye dañ la doon jàngal rek maanaam lu ci ne fu mu jógee euh, lu ci ne fu mu jógee dañ doon layal ne bu buñ ne maskalonk ñu ne waaw la. waaw wuñ dagg la marque suuf ñu ne yaaguñ dagg la loolu rek la du leneen voilà mi ngi nii comme lii la ñu dindi lii mu ngi nii xoola xoola ñu dindi lii waaw lii rek mooy marque suuf waaw gisoo ko ni xamoo lii boo ko tegee ci suuf la marque suuf la loolu rek loolu rek la jubloo jàngale waaw loolu rek la jubloo woon wax waaw hmm. ah hmm. wa hukmu nuunin wa hukmu nuunin sakanat hmm. mu ne laajal ba waaw laaj bi dafa de seere li mu bëgg a wax ah. Mhm. ok waaw tamit lañ doon jàng waaw loolu la miska voilà xarakatul xarfi waaw sukkoon bi muy wax boobu ak seegoo ci accès goo ci sukun bi muy wax accès goo ci dégg ngeen kon ah